bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammad wa ala wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di leen nuyu di wane di fi ñëw ci tànku alhayatu charania li ci ñeel kër asaka yi ñëw fi ànd ak euh, sëriñ Saliou Jaxate ak sëriñ Seexuna Mbàkke ñëw fi ci turu sëriñ Saliou mi nga xam ne moo ko jiite ak sëriñ Mbàkke Abdourahman ak mboolem kilifa yiñ ko seqal tey jii nag waa daayira Muxaddamatul Xidma jagleel kër asaka yi jataay bi nga xam ne mooy waxtaanu tay wi ngir ñu ñëw fekk si ko teewe ko waaye gis nañ jataay bi di lu am solo di loo xam ne nii bari na luñ fi mën a jàngate bu baax a baax mën fee jële ay leson yu bëree bëree bari képp ku fi teew wala nga diglu ko rek danga danga ci mën a am lu bari ab yóbbal bu am solo ci sa wàllug diine ak wàllug ragal yàlla ak ni nga xam ne mooy njàngale Sëriñ Tuubaa loolu nag ñu koy rafet lu baax a baax a baax loolu nag doon lenn ci taxawaay yi nga xam ne daayira muxaddamatul xidma mi ngi koy taxawee ci weeru koor wi di dundal weer wi ci anam yu bare bare bare bari tey jii gis nañ fi eh, yu am solo ndax loolu day wane rek di sunu borom waxoon ne innama yaamuru masajidallaahi man naamana billaahi wal yawmil aaxiri wa aqaama alsalata wa aata zaka walam yaxsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin kon ñoom taxawaay bu am solo boobu lañ taxawe gis nañ tamit bis bu set li ñuy dogal ci ay nit ay junni nit yoo xam dañ fi ñëw kenn ku ne ci ñu ko aajowoo ak nit ñu ñàkk ak kenn ku boo ñëwee daanaka la nga fi fekk sax doo ko mën a fekk sa kër kon yooyu day taxawaay yoo am solo yoo xam ne nii ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla dëgëral leen ba liñ yéene ci liggéeyal Seexul Xadim ñu defee ko niñ ko bëggee rafetlu nañ jataay bu baax a baax rafetlu taxawaay bi waxtaan wi tamit am na solo lool jële nañ ci ay bind yu am solo ci wàllug diine ak wàllug ragal yàlla ñu ngi sant ñëpp leen gërëm. kon ñoom lañ fi teewal ci ma kilifa yi nga xam ne ñoom laa àndal. waaw ñoom nag. seen daayira seen diggante ak daayira bi tamit nekk diggante boo am solo boo xam ne daaw ci waxtu wi tamit taxaw woon nañ ci nii am tamit ab message bu am solo bu ñu fi jàllale woon ci wàllu asaka ak soññaan niñ ci ñi génne ko man koo jëmee ci ñi nga xam ne mooy ñu ko aajowoo ak ñu ñàkk ñi kon ñoom ñaar dañoo am relation bu dëgër boo xam ne eh, ñu koy gën a dundal bu baax rek ndax ñoom ñëpp li leen tax a jóg mooy liggéeyal yàlla ak liggéeyal seexul xadim waaw jërë ngeen ni ko suñu kilifa gi waxee léegi rek. daayira daayira Muxaddamatul Xidma ak kër asaka yi. mënees na ne benn benn kuréel la. sëñ Abdou mi mii ñu fekke woon tey waxtaan wi kenn la ci xëy saraya bi bi nga xam ne Cheikh Salih mu sëñ Mourtada moo ko jiite. relation yi wax dëgg yàlla daaw bi ñuy doog tàmbali liggéey bi. ñu àndoon fi ñëw ci turu suñ saa ci turu ñaari ñaari ñaari pàcc yëpp muy pàcc xëy idaar xëy xëy assurance yi bi sax saa yu jiite ak xëy idaariye bi nga xam ne Touba ci kanam moo koy saytu sëriñ Mouhamadul sax e, yeex gee xam yeex gee yeex gee nee na moo ko tee teewee jataay bi waaye mi ngi wane ne ñu ñëpp ñu fi teew rek te teewal nañ fu siin Sidi Ahmed teew teewal na leen fi ñoom ñaar ñëpp moo tax suñu xabaan it bokkoon na ci délégation war a ñëw waaye bi mu ñëw bi ci yoon di am gàllankoor xam ne Sëñ Sidi Ahmed teew na loolu ñaareel bi ñu fi fekk it ñu ñoo ñun ak ñoom <laughs> ñoo bokk ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk jumaa ji ci ay personnes ba tey ñoo bokk liggéey bi ci daanaka pàcc yëpp moo tax ñu ngi sant bu baax di gërëm pàcc bi fii Sëñ Abdou Khadir waxee eh, am na solo lool ci wàllu alal di soññ nit ñi ci di xam ne alal moom ja cee gën kon nekkete mooy alal ja dagan ci alal ju dagan nit munta laab lu dul ne da nga ciy bàyyi xel bu matee nisaab nga génnee ci asaka loolu soñ bu ama am solo la boo xam ne ñu ngi koy yóbbaale di ko bàyyi lu xel képp ku doon teewul waxtaan wi leen ñaanal bu baax suñu borom gën leen a dëgëral ni ngeen di dundale ruu yi ci ndog yi ay junni junni nit di fi doge eh, ci ci jëmm yi jëmm yi ay junni ay junni junni di fi doge noonu ngeen di dundalee ruu yi ay junni yi junni di ko teewlu yoo xam ne mën naa am mënuñu am euh, amuñu possibilité ñëw ba ci jumaa ji waaye ña nga fa ñu nekk moo xam bitim réew la wala biir réew mi la di dundal seen ru ci jataay yu am solo yu ñu fi def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu sëriñ bi di jégalu bu baax ci kàddu yi nag ci suñ boxoon ñu yox ñu sof ko ci waaw